الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla suñu boroom subhaanahu wa taala di ko dimbali ko di ko ñaan mu jéggal ñu suñuy bàkkaar di ko ñaan mu jubal ñu moom mi nga xamante ni ku mu jubal kooku kenn mënatu laa réeral waaye ku mu seetaan ci maandu téem ba nga réer kenn mënatu laa jubal yàlla ñu yàlla jubal di seede ne amul kenn ku nu war a jaamu ci dëgg ku dul moom subhaanahu wa taala bokkaale ñeelu ko di seede ne muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la ndawam la tànneefam la ci jaamam ñi soppem la yàlla nañ ko yàlla fayal moom ak i saxaabaam ak képp ku topp ci njubam baba yàlla suñu borom subhaanahu wa taala di doon suufam si ñuy dénk suñu bopp mbokk yi di leen dénk ragal yàlla suñu xutbay tey ñu ngi koy fas yéene amal ci ñaari tomb benn bi mooy solo wala taxawaayu jàkka wala wàccuwaayu jàkka ci jullit ñi ñaareel bi mooy jullit bi ban relation la am digganteem ak jàkka ñu ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala mu defal ñu dégg topp يعد المسجد المكان الذي يؤدي به المسلمون أهم أركان الإسلام وثانيها وهي الصلاة jàkkade liy wàcc waayam mooy mooy béréb bi nga xamante ni fa la ñuy jooxee ñaareelu ponk islaam yi ginnaaw shahaadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammad rasulullah ñaareelu ponk bi muy wa iqaami salaa taxawal julli jullit bi war koo def juróomi yoon ci jàkka jooju kon béréb la boo xamante ni jullit bi dafay dem ngir wéetali boromam subhanahu wa taala ngir gën a jege boromam subhanahu wa taala loolu mooy wàccuwaayam bi njëkk ñaareel bi mooy yajtamiu almuslimuuna fi almasajid li tadaarus alquran wa xifzihi wa taallum ulum walmawaa'iz li tazkir almuslimin billahi taala wa xathihim ala alaxlaq alfadila ñaareel bi mooy day dajale jullit ñi ngir ñu fay jàng seen mbirum diina te ba ca njëkk mooy jàng alquranul karim ak bépp xam-xam bu làmboo alquranul karim muy tafsir ngir xam li alquran di firi wala ilmu ilmul qiraa muy ilmu tajwid mooy xam-xam bi ngay jàng ngir xam alquran naka nga koy jànge jàngin bu set ndax yàlla moo ne wa rattilil qur'ana tartila bi maana wa jawwidil qur'ana tajwida kon ñaareel wàcc waaye mooy dañ fay jàng xam-xam rawatina yeneen xam-xam yi nga xamante ne ginnaaw yu ñuy wax léegi mooy xam-xamu sharia muy fiq ak lépp lu ci ajoo muy ñaareelu wàccuwaayam ci diine islaam beneen bi mooy umpalewul ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko yàlla yónnee ci màkka moom ak ña ko jotoon a gëm kaanu yajtamiuuna fi daaril aqam ñu ngi daan daje ci kër wala daara lu ñu daan wax daaray arqam kër arqam kon daara la woon lañ fa daan def mooy li ñu wax léegi jàng seen mbirum diine waaye li tadbiiri shuuni daawati aljadid ngir xool diine ji nga xamante ne mooy diineel islam bi ak nan la ñuy def ba mu yaatu kon ba mu fa jógee dem Madina bokk na ci uula ihtimaamihi la mu njëkk a def mooy samp fa jàkka ngir la amoon fee muy daara ja am ci jàkka ji waaye it mu fay tàggat góor yàlla yi nga xamante ne tey jii ñoo gàddu woon raayi islam gi ba mu wasaaroo ba egsi fii ci Sénégal ak fépp ci àdduna bi kon béréb la boo xamante ni ci lañ daan tàggat ñi nga xamante ñoo nekkoon saxaaba yi tàggat goo xamante ni dañoo nekkoon ci réer waaye ñu leen fa tàggat fa jàngal leen fa ñu xam yar leen fa ba ñu nekk ñoo xamante ne tey jii ñoom ñoo wasaare diine gi ci li leen yonent bi saa sallam jàngaloon yaree leen ko mu bokk ba tey ci wàccuwaayu jàkka mooy képp kuy alfuqara wal masakin ñi ñàkk fañ daan daw di fa jooy seeni soxla te jàkka la woon yonent bi sallallahu alayhi wasallam képp ku musaana ñëw am looy indi ngir ndimbal wala ay zakat moo xam alal la moo xam ci mbay mi la moo xam ci jur gi la daka daan garde waaye di ko séddale ñi nga xamante ni ñoo nekkoon alfuqara wal masakin yi nga xamante ni daa nañu xam seeni soxla ndax doomu aadama yi dañoo séddale ko ci ñaari xaaj mooy ñi ñuy wax way ñàkk yi am na ñoo xam seen ñàkk mën nañ ko wax waaye am na ñoo xam seen ñàkk dañ ko yóbbaale bàmmeel waaye yow mi nga xamante ne am nga seetlu wasiira ci mbir mi mën nga gis nit nga xam ne kii ci ñi soxla lañ waaye am na ñoo xamante ne moom egg nañ la seen soxla bu ko defee la ngay jot ca la ñu war a séddale alfuqara wal masakini kenn ku nekk la nga war a jot lu tolloog sa aajo di nga ko jot noonu la ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam daan defee loolu moo nekkoon wàccuwaayu jàkka aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa lisaa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه والمحذر من سخطه ونيرانه mbokk yi ginnaaw bi ñu santaate yàlla suñu borom subhanahu wa taala ci rafetal gi mu sax di ko rafetal suñu biir di ñu dénkiit ñuy rafetal suñu diggante di ko sant ci bépp xéewal boo xamante ne mu ñu koy def mu ñu koy defal te ñu lot lool ci di ko tudd ñuy seede ni moom dong lañu war a jaamu nag ci dëgg bokkaale ñeelu ko moom subhanahu wa taala di seede ni tat ba tey ni yonent bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mi aji woote gu rëy ga ci lépp loo xamante ni lu yàlla gërëm la waaye mooy borom woote bu rëy ba it ci lépp loo xamante ni dafay yóbbe nit ki ci merub yàlla te lépp luy yóbbu nit ci merub yàlla loolu fu muy jëme nit ka mooy këru safaan yàlla na ci yàlla musal kon suñu taxawaay ñaareel mbokk yi mooy ban relation la jullit bi am ak jàkka nag al muslim jullit bi faw léeg-léeg muy delluwaat ginnaaw di poser ay question te bokk na ci question yooyu bi ci ëpp solo mooy question man a kan man may kan ndax moo lay delloowaat ci nga summi bépp mbubb bu ne ci yow wala garat bu nekk ci yow delluwaat ci benn garat bi yàlla soxla ci yow mooy ak jaam ndax bi ngay ñëw fii ci kaw suuf indaale woo dara booy demit doo gàdd dara yóbbaale lu dul loo fa jiital muy say jëf kon question bi nga war di poser sa bopp saa su nekk mooy man nii man may kan ginnaaw gi nag bokk na ci question yooyu mooy man sama relation ak jàkkalan la yàlla suñu borom subhanahu wa taala dafa wax ci alquran ni innama yaamuru masajid allah man amana billahi wal yawmil axir ñiy dundal jàkka mooy ñi nga xamante ni ñoom ñoo ni dañoo gëm yàlla ba pare gëm bis bu mujj ba gëm ni fii duñ fi sax yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ci xadis ni ida raayta arrajul yaataadu almasajid fashhadu lahu bil iman su ngeen gisee waajoo xamante ni saa su nekk bu diggee xayya ala sala mi ngi ci jàkka ja néew na loo koy gis ci benn béréb yu ko wër boo koy wër sax demal nga xaar ko ci jàkka ja fa nga koy fekk nee na kooku na nga seede ni kooku noonu ab jullit la kon yow boo posé sa question nga laaj yow ak jàkka lan mooy seen relation mu bokk nag ci relation bi njëkk si sa diggante ak jàkka mooy alal muslim an yaxrisa ala imarati al masjid maanawiyan وذلك بالمحافظة على الصلوات الخمس والحرص على أداء النوافل والمستحبات jullit bi dafa war di xirtal boppam saa su nekk ci jullee waxtu juróomi ca jàkka ja lu yem ca farata ya waaye mu cay teg ay nawaafil waaye du ca yem ba tey mu cay toftal lépp loo xamante ni ay azkar la muy zikr di tudd yàlla di wéetal yàlla ngir nga mën a nekk ci ñi nga xamante ni ñooy ñuy tax koo jàkka bokk na ca jàng alquranul karim bokk na ca ba tey yi nga xamante ne mooy jumtukaay jàkka ji ngay xool naka nga koy mën di organiser saa sa nekk ba ci tëj buntu yàgg fenêtre de sax mandarga bi booy na ni yow mi ko tax koo jàkka nga te nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni am na juróom-ñaar ñoo xamante ni yawmal qiyaamati ca naaj wu tàng wa yàlla dina leen dugal ci suufu keram muy keru arsh bi mu bokk ci mu ne rajulun wa qalbuhu muallaqun bil masajid waa joo xamante ni moom dafa taqoo jàkka saay bu jullee waxtu ma ngay séntuwaat wala di xaaraat waxtu wa ca topp ngir mu dem joxi ji ko ca ca jàkka ja kon ngi nga bokk ci juróom-ñaar yooyu noonu jar na rek saa su nekk ngay taxoo li nga xamante ni moo nekk jàkka mu bokk ba tey ci liy wane sa relation yow ak jàkka mooy ngay taxaw saa su nekk di sàmmonteeg cetu jàkka ji di sàmmonteeg jàkka ji yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci benn xadis mu ni waqad jaa an nabi sallallahu alayhi wa sallam qawluhu uridat alayya ujura ummati xatta alqadaatu yaxrujuha arrajul min almasjid fa yujazihi allahu azza wa jalla alayhi al ajra al azima mu ni ci sama xeet de yéemu naa ci ñoom ci yool yu rëy yi nga xamante ni dañ koy mën a jële ci jàkka mu ni nga fekk ab xeer wu ndaw ci jàkka ji wala ab dunk wala ab bant mu lenn li kii moom boo ko doon natt lan la ci jàkka ji da nga naan kii moom mbalit la wala poussière sax bu tax nga jël sa musuwaat Kleenex pompe ko poussière ba dem nee na yàlla subhanahu wa taala mu ngi la dencal ak yool goo xamante ni bu la ko wanee ëllëg da nga ne su ma yëgoon man maay sasoo lépp lu jëm ci wattu jàkka ji ci wàllu cet am na seen soxna soo xamante ni daf daan yittewoo cetu jàkka ji ba ci taal cuuraay yeeg lépp moo ko daan yittewoo ci jàkka ji ndax yoon saa salaam moo ni jàkka moom mooy delluwaayu buur yàlla yi mooy delluwaay ñi bëgg a jege seen borom ci di ko zikkar ak di ko wéetal mu ni ndax jàkka jooju kon yelloowul ñu def ko comme ni ñuy toppatoowee suñu kër yi tontu bi mooy axakay moo tax soxna sos bi mu faatoo fekk ci guddi gi la faatu ñu xëy suba wax ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu ni lam moo tax waxu leen ma ko woon ñu ni daa guddi woon moo tax wax ñu leen yonente sallallahu alayhi wasallam ni bërët bàyyi fa ñépp jub ñu topp ko fan la jëm mbokk yi ci armeeru ndaw si ngir taxaw fa ñaar ko kon nga gis ni ja ndaw sa lam doon def am na ñu ko daan gis sax te duñ ko considéré nekk li roy yi la woon ci islam ci niñ ko waxee woon ci xadis bi ak jëf ji nga xam te ñoom saasam jëf na ko jug dem ba ca bàmmeelam ngir ñaanali ko rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اهدنا إلى صراطك الصوي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله بابي جان نيوان نيوان نيوان أيوة بسم الله جان لنتي كان بون فيس نيوان sekk ñëw leen ci kanam aywa sumaare ñëw leen ni ci kanam ñëw leen ci kanam ngeen fasal kii sape yi